ñu jamono ji mm. eh, ci bi son bu jom ñu ngi bàyyi xel ñoom ñëpp macha allah la solution moo ñu gunge. waaal ñu ngi en face wal fajjari di yëngatu ci garab yi nga xam ni ñooy garab yi cosaan lu ci mel ni garabu hémorroïde ndoxum siti new kattan raay mu sedd ballonnement ak estomac. Mm-hmm. waaye it am na garabu asthme goo xamante ni bii bu efficace la bu say tànk xare ñëwal ci butigu solution solution plus mi ngi mi ngi ci bitigu solution waaye tamit li nga xam ne moom la ñuy wax autoroute plus mesere ko ko tuddee. waaw mi ngi ci bitigu solution la yokk ci autoroute ba nag ku ko jënd da nga ko boo. wee na ku dem naan lan mooy autoroute ma ko wooteel ci numéro bi rek. man naa nekk de mun ma luy autoroute. waaw autoroute hmm, na woote ci 78 boobu rek ma jigéen di joxe. dellu di wax ni. Hmm. Euh, fas gi ñu ngi ci boutique solution macha allah di def tamit ay miracle ci lu jëm ci wàllum sorante wàllum njur mm-hmm. waaw nga xam ne doo fi nekk di naani xoox wala ngay lan fa daggu yaram comme ni ko sony bu di faral di waxee mm-hmm. Mm-hmm. waaw nga xamante ni bii daal ak fas la goo xam ne boo ko takkee macha allah sunu borom defal la loolu di dellu nag sony bu nag di wax ni Euh, numéro téléphone yi ma jigéen. joxe ko ma jigéen 78 la 426 66 77 78 426 66 77 wala nga def 75 630 50 50 75 630 50 50 lundi baal juma 8h jàpp 16h30 son yi bu jot. mi ngi noonu jërëjëf euh, <clears throat> ma jigéen am na solo en tout cas li ñu bëgg a waxtaane tey bëgg naa ci jël benn point rek ñu waxtaane ko euh, ci ñetti minutes bu dee dina fi mën a xaj. ndax élément bi xaw naa xëcc tuuti sinon itamit ñu dem ci élément bi directement. ñetti minutes moom gàtt moom balaa ñuy wax sax nga ne ñu demal ci élément bi. kon dem ci élément bi. waaw bëgg a nañ cee ñam tuuti rek de ñoo ñam ah, rek kon ma jigéen ñam. man balaa boobu balaa ñuy ñëpp koy faa ngeen ñam yéen ñaa ñëpp hmm. bëggoon ñu wax rek ci daje mi Macky Sall ñi euh, waa APR daje woon doon euh, fêter les années de prisent Macky Sall. ak kàddu yam fa yëkkati daal ni réew mi fii ak mi ngi fi du nangu mukk ku koy ruubee nee na nag ku ko nar a ruubee doo fi am jàmm te dina la régler ni kaas ca taabal yooyu yëpp daal wax na ko ba wax itamit bilan bi fi liggéey nee bilan du ay tëj ay nit ak te Sénégal amul prisonnier politique loolu daal laa bëggoon ñu ñam ci tuuti rek. waaw sooy bu nañu ko fàttali rek ne moom fi nii jamono ji moom mm. réew mi moom. nekkatul daanaka ci ay loxoom parce que. Euh, ah bien daanaka nekkatul ci ay loxoom parce que dañu jëm ci ay élections moom bokkul dafay jël la ngay jox ko keneen. kon hmm. donc mënatu a wax ne ku fi bëgg a sëme kaw fii li yi wax rek. Hmm. ñoom ñi daan ñoom ñi ñi jàpp ni sax dañ ñoom ñoo doon bëgg xeex ñoom jàkkaarloo nag ñoom ñoom. Hmm. ne leen carrément ñun xeexuñu. xuloowuñu dóorante wuñu ay mhm. tàcconte wuñ sax ay loxo lu ñu bëgg mooy dem ci élection ki kii yàlla suñ boobam jox réew mi mu gañe kon donc ay seme kaaw hmm. du tey moo la ko jëkk a wax keroog bu mu demee ca Fatick xaw lan moo xewoon hmm. wax na ko fa kon donc président daal fii mu toll nii na jéem a tàggatoo tàggatoo bu rafet rek moo gën ay. d'accord taw yu muy tudd vraiment parce que ñu taluñu ko. ah li mu wax de loolu lañu bëgg comme que wax na ko. Hmm. waaw bu fi kenn sommet lenn macha allah yal na yàlla teg réew mi ci jàmm ak salaam. bu fi kenn yëngal waxul dañ la rek ni kaal ah, ci kenn du ko def kay moom wax dëgg fi yàlla ba ki fii tegu eh. dana wax ni mu nar a doxalee réew mi waaye moom mi moom lii mu wax moom bu ko kenn def waaw parce que ah. nag wax dëgg fa yàlla lu am solo la benn benn paa laa dajal fii féetu fi ma dëkk ah. dafa seetaanoon sama vidéo boobu ma doon waxee naa ñun xeexuñu mu ni ma bi ma seetaanee sa vidéo bi damaa bëggoon a xëy yor martu ak pikk di wër xeer yi ci mbedd yi di ko toj pour bañ bañ bañ histoire nee na mu ni mu yàgg nee na su ma ko defee sax xalaat naa ne ñu ni ma trouble à l'ordre public <laughs> poussière bi nangam nee na ma bàyyi <laughs> daa bëggoon toj xeer xeer yëpp la bëggoon toj nga xam ne xeex du am <laughs> waaye nee na bu ma ko defee mën nañ ñu ma yaa yëkkati poussière bi yaa fi indi lii kii bi lu tax ngay toj xeer yeeg da nga ciy jublu pour dajale kii association de mal fii ak. Ah, est-ce que préparé wu leen pour di ko sànni ay xeer. waaw ah, dajale ko gone yi di leen ko jox. yooyu yëpp mën naa ne. non moom da ko bëgg mokkal ba mokk. def ko ah. pëndax. def ko pëndax bu waa ñu ne ko léegi da ngeen koo bëgg di ñu ko ëf. <laughs> ñu tere leen sànni xeer ngeen ñuy ëf. ngeen ñuy ëf poussière bi. macha allah pour fàttañu. aywa yooyu yëpp kii